à l'école du Ramadan à di du Ramadan di ay yóbbal ak i jindiku yu leen MMS Pro 221 di baaxee bés bu nekk ci weeru koor wi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 bokk julli ñi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa di amat mbégte ak kontante di dellu sa waat ak yéen ci suñu rubrique à l'école du ramadan jotaayu tey bi nag dañ koo jëmale ci léeg-léeg yenn erreur yi nga xam ne nit ñi dañ ciy tàbbi ci biir weeru koor loolu di gën a dugg ci ku nekk ci ñun mën a bàyyiwaat xel jaamu yàlla bu màgg bi nga xam ne moom la nekk léeg-léeg di nga gis ñenn ci doomu aadama yi di def ay mbir yoo xam ne du ñu jàpp ne erreur la ci biir weeru bi mën naa yegg sax baraw erreur dem ba nekk li nga xam ne moom mooy musiba euh, mu bokk ci mooy koor gi ñu bañ ko jox dayo bi nga xam ne moom la yel lool te mën nga ne loolu daanaka yeneen njuumte yëpp dafay balloo ci moom mooy koor dafa nekk occasion boo xam ne jaam bi daf ci mën a jaare pour mën a juboo ak boroomam subhanahu wa taala lu dee nit ki nag jox ko gëdd bi mu yoyoo joxu ko valeur bi nga xam ne moom la ko borom bi jox loolu daf koy yóbbee ci mu sàggane ko te su ko sàgganee rek yiw yi nga xam ne moom la mën a màng ci biir weeru bi du am yàlla subhanahu wa taala koor bi ci duggee dafay changer atmosphère bi nga xam ne moom la ñuy dund aljanna yi mu ubbi ko buntu aljanna yi buntu safara yi mu tëj ko seytaane yi nga xam ne léeg-léeg ñoo doon incité doomu aadama ci def lu bon yàlla subhanahu wa taala jéng leen ngir assainir environnement bi ba jullit bi mën a nekk koo xamante ne ni dafay jaamu boromam subhanahu wa taala mu nekk weer woo xam ne yàlla li ci li mu ci dëxañ ci ay yiw dëxañu ko ci beneen weer weer wu màggee noonu tol noonu jullit bi su xamul valeur am rek dafay jaaree daal di ko sàggale loolu mooy njuumte bi ci njëkk mooy nit ki ci boppam ñàkk xam valeur bi nga xam ne weeru koor am na ko te loolu jullit bi jaamu yàlla bu nekk su ñëwee dafa war a gëstu jaamu yàlla bi ban la ban dayala ko borom bi subhanahu wa taala jox ñaareel bi ci njuumte yi nga xamante ne nii léeg-léeg dafay dal nit ñu bari ci biir weeru koor gi mooy bëccëgu weeru koor gi yëpp da gis ay doomu aadama yoo xam ne dañ koy nelaw daanaka dañ koy nelaw da ngay gis ay nit yoo xam ne mën nga ne seen slogan biir koor gi yëpp mooy ñoom daal suñu xëddee tëdd suñu yeewoo daal di dog nga xam ne guddi gi yëpp jaral na lañ ñu veye ko ci lan lañ koy veye yàlla xam mën na nekk ay futilité mën na nekk leneen ak leneen waaye suñu xësee ba xëdd ñi ci tane sax mën nañ dem julli ji fajar waaye ñi nga xamante ne amaana peut xamuñu valeur koor ak jaamu yàlla yi yàlla subhanahu wa taala cër bi mu ko jox ci biir koor daf leen jaral suñu xëddee rek ñu daal dem tëddi nelaw tëddi nelaw journée bi yëpp daal di yeewu 17 heures wala 18 heures nga xam ne suñu yeewoo waxtu bu tuuti moo ci des daf mën a jot loolu njuumte gënu koo rëy ki nga xam ne xam na valeuru koor dëgg dëgg dëgg bëccëgu koor gi yëpp du ko passé ci li nga xam ne moom mooy nelaw bëccëgu koor mbokk jullit ñi ëpp na ci ñu koy passé ci li nga xamante ne ni moom mooy ay nelaw loolu aussi ci njuumtey la bokk donc weeru koor du weeru nelaw dañu wàññi nelaw yi ci biir weeru koor gi consacré wu ci jaamu yàlla subhanahu wa taala beneen bi aussi ci erreur yi nga xam ne léeg-léeg ay nit dañ ciy tàbbi ci biir weeru koor mooy boyal seen làmmañ boyal seen làmmañ ci wax lu leen neex ci saagawaate ci xassaate ci jëwaate ah ci wax lu dul dëgg or que nit ki saay su wooree rek na jàpp ne ni mu wooree ci biiram donc ay cëram dafa war a woor surtout làmmiñ bi nit ki mën ko téye bu baax a baax parce que koor en réalité dafay ñëw di jàngalaat nit ki si na ne làmmiñ bi ci boppam da koo war a moo tax bépp waxu caaxaan wala bépp waxu mbóosóor boo xamante ne làmmiñ daf koy génn donc ci bëccëgu weeru koor ra loolu sax day demale ba ci guddi gi mais surtout ci bëccëg bi nga xam ne nit ci lay woor donc loolu mën na am lu bare bare lu mu ko yàqal ci biir weeru koor gi moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam da doon wax ne man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamahu wa sharaaba yonent bi nee na képp koo xam ne mënul bàyyi waxu caaxaan wala jëfu caaxaan ci biir weeru koor nee na kooku yow yàlla soxlawul sa baay bi nga bàyyi lekk ak sa baay bi nga bàyyi naan kon boo wooree aussi fexeel ba tee làmmiñ bi ci lépp loo xam ne dafa naqar yàlla subhanahu wa taala bul woor ba pare aussi di boyal sa làmmiñ yaa ngi woor mais yaa ngi jëw ay doomu aadama yaa ngi teg ci kaw ay deru mbokku jullit lu ñaaw yaa ngi xassaate yaa ngi saagawaate yaa ngi génn ay kàddu yu bon ci sa biir làmmiñ loolu ay erreur la yoo xam ne mën naa yóbbu sa jaamu sa jaamu bi nga xamante ne moom ngay jaamu yàlla ci biir koor gi beneen bi ci njumtey ba tey mooy ñu baree baree bari ci biir weeru koor gi lekk léeg su koor gi duggee da ngay gis suñu tàmbalee ci wàllu jaamu yàlla dañuy dem ba ci biir ñu bàyyee ko maanaam du ñu mën a am ak sax ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla loolu aussi bokkaat ci erreur weeru koor su fekkee nit ki daf koo tàmbali ci ay jaamu yàlla mu ngi commencé di dem jàkka yi mu ngi commencé di dem jinnaafila yi mu ngi commencé di toog ci jotaayu xam-xam yi léegi nit ki su tàmmee su tàmmee loolu ci début ramadan bi donc dafa war a continuer ci loolu ba weeru koor gi jeex waaye malheureusement da ngay gis ñu baree baree bari léeg-léeg dañuy tàmbali weeru koor gi ci ay jëf yu baax ay jëf yu baax yoo xam ne coor gi su matee su demee ba am semaine wala mu wala mu demee ba xaaj rek da ngay gis nit ñi daal di commencer bàyyeeku loolu aussi ci njuum tey la bokk donc bepp jaamu yalla bo xamne yang koy commencé di def ci biir wéru koor gi fexel bu bul bàyyeeku ànd seeg sax ndax wéru koor gi li ci ëpp solo mu ngi ci njombaxtal la mu ngi ci mujj la kon yi ay la yo xamantene ni dañ ci baye xel bu baaxa baax ci biir wéru koor bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal li dégg ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ramadan ya